ak euh, nomination yi bu ñu retrouver ku ci mel ni tey Habib Sy Aïda Mbodj entre autres ba ci ki nga xam moo di Dame Mbodj ak capitaine Touré est-ce que surprise la war a doon ci ci ci ñun. xam nga dama ko fi waxoon euh, ñiy xarab ñiy d'accord dénkaane ko wóolu ba pare nit ki doo nekk xeex ak moom ñu dugal la kaso euh, yàq sa liggéey dàq la sa liggéey maanaam nga subir li nit ki subiir Euh, ki nga ki nga doon jàppale ba pare bu cëru amee ñu ñëw ne Birahim kaay parce que am nga sa CV euh, compétence alors que am na keneen koo xamee ne ci jàppoon nañ ko dugal ko ci kaso wala sonal nañ ko bundu nañ ko moom am même compétence que yow yi nga am mu am CV même CV que yow teewul ni président Bassirou Diomaye Faye bind ci Diomaye président dans son programme il y aura des appels d'offres Euh, mën nañ jàpp ni daanaka quinze pour cent wu direction yi ñoom lañ joxee gum mutu ko sax li fi nekk ci ay direction PCA yi yaakaar naa démb benn lañ ci wax mooy bu bu bu Habib mais si tu prends le docteur Aïda Mbodj liñ ko dénk DER euh, Aïda ay Aïssatou Mbodj ñu koy nuyu elle est docteur en gouvernance territoriale mais DER loolu la wala DER lan la. gouvernance territoriale mooy lan. Mm-hmm. fexe ba territoire ba. ña fa nekk ressources ya fa nekk. ñu xool am jumtuwaay yoo xamee ne xool noonu leen di yëgatee. te ressource ci territoire waaw ci territoire kan moo fa ne. ndaw ñee fa ne. jigéen ñee fa ñoom nga war a booster pour que territoire bi mën a am euh, euh, doole bi mu war a am yow kii elle n'est pas euh, xaw ma lan licence elle est docteur en gouvernance territoriale nga dénk ko domaine am nga ko dénk. parce que daf ko jàng ba nekk ci docteur jox ko doctorat ci gouvernance territoriale nga dénk ko ko mais xayrul pour les autres Dame attention nag tu sais quelquefois le le président parce que euh, gis nga dafa am loo xamee ni euh, si secret wu palais lay nekk nekkul ci plateau yi yenn saa nit dina fal nit pour nit kooku noppi yenn saa nga fal nit non déglu mu baax de yenn saa nga fal nit teg ko fenn. pour ne ko am nga lu la doy tey. Ah. bàyyil wax ci lële. Ah. loolu sama mbir la. Ah. yow lijjantil ma lii. boo demee doo doo talati wax yenn yi. je vais rejoindre Dame wax na ko fi benn jour ci benn conférence de presse suma juumul ne ni mais ñun mënuñu ñu ñuy rey chaque jour dañu dugal ci kaso bi ñu nekk ci naaj bi. ñu ñëw war falu ñu jël ka toogoon ca kër ga naan leen bravo jël ko teg ko te yow nga reyante je suis très d'accord ci waxam boobu je suis très d'accord ci waxam boobu ba pare leneen li mooy il y a forcément régime bu ñëw déwadisation amoon na déséquisation amoon na mais da de makki xam nga makki makki ni ñu koy woowee te day am xam nga tax mais est-ce que je vais donner je vais donner mes moyens, moi gouvernant, à mon adversaire ou mon ennemi ñan la ñu changé ni ci ëpp je pense que ñaar wala ñett rek ñoo ci ndul politique ci ñuy changé depuis par exemple ku ma wax ni elle n'est pas politique mooy par exemple ki nekkoon directrice Boussard euh, son nom va me me revenir elle n'était pas politique hein ah, euh, son nom va me revenir je l'ai en tête elle n'était pas politique mais la mu yore ak période bi ñu ko yore ni dañu soxla woon koo xamee ni dénkaane ko wóolu koo wóolu ne ko jàppale ma ci loolu parce que bokk na ci am importance muy wënum pétrole ak gaz ndax ñu ngi jëm ci exploitation bi euh, navire euh, FPSO bi ñëw na war a lijjanti loolu il faut nga dénk koo xamee ni peut-être da nga naan ni dina la mën a defal au jour le jour donte ki fi nekkoon elle n'est pas politique mën la defal le bilan par rapport ak li ngeen di liggéey euh, ñeneen ñi nga xamee ni dañ leen fal mais Cheikh Omar Diagne peut-être ñu binduñu ko ci journaux yi mais am na décret bu ko bu ko teg ne ko moom mooy directeur des moyens généraux yu yu yu yu comme je disais c'est toujours le même mot qui revient dénkaane ko wóolu ba pare il s'est quand même par rapport à ce projet mais battu et combien de fois il a été emprisonné même par rapport ak projet bi comme Dambot l'a été en, 2000, en 2021 suma juum c'est-à-dire que ce sont des choix qu'on le ou non le président de la République ci constitution moo ko ne yaay nommé au poste civil comme militaire prérogative la ba xëy ni constitution maanaam kon réew mi ñoo ko jox waaw ñu jox ko prérogative ne ko am nga sañ-sañ yow yaa am sañ-sañu def nangam nga def ko nga nekkul tax nga def ko yow yaa ko am sañ-sañ bi nga def ko ñu ne lu tax nga def ko parce que non da nga waxoon ci campagne ni non dama su ma ñëwee dinaa def nangam gis nga les propos de campagne Charles Pasqua wax na ko ñu ne Pasqua ko waxoon ñii ne Chirac ko waxoon euh, ñi ko gëm ñoom la engagé ñoom la engagé <laughs> la bind nag on dira non euh, a été écrit noir sur blanc mais ba léegi man jàpp naa ni génn guñu ci loolu parce que lu ñu wax tamit ci bind ko noir sur blanc moi je me base sur le programme de Diomaye président mooy à certains postes il y aura appel à candidature à certains postes mhm. certains nag mën doon trois wala quatre ah. ah ñu nangoo ko noonu rek mais l'essentiel xam nga c'est le résultat qui compte pour pour moi pour moi actuellement nii c'est plus le résultat qui compte qu'autre chose. Qu'on parle de ceci ou cela. Euh, et comme le gouvernement le président de la République a la possibilité man mën naa la fal fenn nga doxal ba ci digg bi je me rends que yow fi mën a teg des na mais ñaata yoon nga fi remaniement mën naa am ministériel comme remaniement ci ci ci wàllu direction et après personne ne dira que non euh, ils n'ont pas le droit mais qu'on qu'on les laisse euh, évoluer et euh, peut-être que on aura de de bons résultats moom la ñu en tout cas. d'accord Abdoulaye. a ngi yéen ngi yéen actuellement de gis nañ yenn titres yi le pàccoo national Sonko place ses hommes <laughs> entre autres ci ay titres yan lecture ban lecture ngay def par rapport ak yi nga xam ne tey retrouvé nañ leen ci yenn direction yi. waaw bon ñi wax pàccoo moom xam naa ne waa beneen boor